jërë ngeen jëf mbokki wasaare lamb wasaare TV yéen seen émission bi nga xamante ni mooy jàmmaarloo su ma nee jàmmaarloo nag xel yi dem ci làmb ndax ñaari bët dañuy jàmmaarloo waaye tey dañ koy def ci benn façon beneen facette boo xamante ni dañuy invité ñi nga xamante ni ñoo de ñoo jege mbër yi wala ñi nga xamante ni ay supporters lañ wala ñi nga xamante ni dañuy dund làmb tey nag ñu ànd leen ci combat boo xamante ni mu dox ci diggante Modou Lo ak Ama Baldé ñu. andi leen ñoo xamante ni ay mbër ngay gis ah, ak ay ménager mais tey di wax leen leen neex seen mbër bi nag maa am ki nga xamante ni mooy supporter wu Modou Lo côté bi di leen bàyyi rek ñu nuyoo ma koy jëkkee ci père waaw euh, asalaamaaleykum euh, maa ngi leen di nuyu seen tur ak seen sant euh, di nuyu waa Pikine yëpp. Mm-hmm. di nuyu sama adversaire bi euh, waa Parcelles. Mm-hmm. Euh, di nuyu euh, Sénégal yëpp yàlla mosuñu ci mbas mi. Mm-hmm. yàlla génne ko ci àdduna mu ànd ak taw bi dem. waaw man maay Pothio président supporter Ama Baldé de Pikine waaw. maa ngi nuyu ñëpp ku nekk sa tur ak sa sant. du nuyu sama adversaire mooy Grand Podio di nuyu waale waa parcelle unité 26 maa fi teewal waa PA waa di ñaan yàlla mbas bi yàlla na fi sunu borom yemale ko fi daal. mais affaire bi dafa sedd dama sedd yooyu noonu te xam nga ni li warul sedd affaire ma gis la nga. waaw Ama Baldé ne xam ne Ama Baldé moom dara du yomb. waaw kon euh, Ama Baldé euh, ñu ko formé man si laa bokk. Mhm. Euh, fekkee génération bu mu nekkee xale. Euh, si laa bokk parce que man magam laa àndal Paate Balde. man laa doon àndal euh, daan supporter euh, terrain sama équipe ASC Cosaan heure bu may jaar seen bundu kër dama koy yóbbuwaale. yaa ngi waaw ASC Cosaan de Pikine mais léegi dafa daanu. Oh, non daanuwul parce que peut-être ASC yi Cité Police génn na si moom. mais taxul ne ba léegi ASC bu mag la parce que trophée yi ñoo bari daal. Mhm. parce que bañ ko xamee gis nag bokk jëf. Mhm. Euh, régional ñëpp xam ne journal bokk jëf régional ba troisième édition. ka moo sa mbër. Euh, sama mbër sama mbër euh, jamono jooju mooy ñoom Jules la. bu mag. Mhm. man moom laa daan supporter ba nu bëri ñu Papa Sow ñun ñëpp. demoon naa stade bi yóbbaale ay supporters parce boobu moom supporter cosaan la moom ba léegi comme surtout police sax formé na moom ba léegi dafa dëggal ne moom cosaan la faral ba léegi. waaw kon boog loolu la moo tax Ama Baldé lu ma mën a wax su moom. Mhm. bari na. waaw sama booy bu ma jege la. waaw koo xamante ne vraiment mu sa dellu ginnaaw. te ñëpp xamoon na ni mbër lay nekk. waaw kon kon ñoo kon ñoo xam ne kon euh, euh, làmb ji. Hmm. Euh, singulu ñu sax Modou Lo hmm. parce que làmb moo toll foofu. parce que làmb Modou Lo Ama Baldé histoire la boo xamante ne dafa yàgg. Hmm. parce que Ama ba muy dem di bëri ji Modou Lo parcelle unité sa bayal ba. boobu moom war ko woon sax keneen moo ko waroon bëree ne kooku am euh, ndog-ndog ñu ne am Baldé yaay dem bëreewu mbapat boobu buru kon ñoon Modou Lo si bayal bi terrain football boobu. bokkoon ko yóbbu. bokkoon naa si ñu ko yóbbu. demoon naa si waaw xam nga làmb jooju nu mu demee mooy euh, dañ gëm la woon ni. Mm-hmm. Euh, làmb ji peut-être day teel a commencé. dañoo gëmoon gée lay commencé làmb ji bu ñu jullee gée. Mm-hmm. ñun ñu teel a dem ak suñu fëggu. ak suñu yàkkamti ba ñu teel a demee gars yi toog toog toog toog toog toog affaire bi yàgg toog toog toog affaire bi yàgg ñun reeruñu woon boobu parce que yàkkamti nañu ñu toog toog ba ay presque ay minuit une heure moins c'est la làmb ji doog a démarré parce boobu teel nañoo dem après si la Modou Lo génn si këram dugg si euh, si terrain bi moom daa génn rek dugg si terrain bi waa fekk nag boobu ñun yàgg nañ fa trop vraiment euh, lu ñu gën a sonal loolu si la bokk. et tamit euh, mbooloo mu féete sa moom c'est très normal seen koñ la seen terrain la mbooloo mu féete sa moom euh, ñu bëree euh, làmb ju metti dañoo bëree jaxasoo bëree jaxasoo dal supporters yi ñëwaat après ñu ñëwaat songowaat bëri bi metti su bëri bi metti bëri bi metti après Modou Lo daan ñu waaw daan nañu moom su boppam. mais léegi yéen su ma déggee wax ji da bëgg a lay ne la yàgg gi ngeen fa yàgg moo tax da ngeen da waaw mais mais grand bi mel ni comme doo day juum ah. lamb ji terrain église lañ ko bëree. église lañ bëree lamb ji. loolu waa parcelle waa Pikine ñëpp xam nañ ne bëri bi ci terrain église la mënul am ko ñoom Modou Lo comme bi fa lañ ko tëgee woon pour ñu bëri ñoom ñaar. ok ji gaaw vite fait te ci arène ba sax noonu lay gaawee. yaakaar maa la wax loolu vite fait la. non lamb ji boobu gaawul woon. Mbapat ba muy wax noonu. <laughs> waaw boobu fekk na Ama Baldé xale la Modou ko mag. barke rasulillahi moo ko mag non non boobu Modou Lo ko mag billahi leer la bo Modou Lo ko mag Modou Lo ko njëkk a bëre Modou Lo ko njëkk a bëre mbapat Modou Lo mënul mag Ama Baldé non si moo ko mag moo ko mag Modou Lo Ama Baldé ñoo maase déedéet ga Modou Lo gëm boppam loolu tax yi ca kaw déggoo ma billahi wallahi bëgg a def ay Modou Lo mag non non maase wu ça veut dire new ma Modou Lo mag la du mag mais moo mag Ama Baldé jour mbapat boobu. est-ce que loolu la ko woon ba daan ko ci làmb non ça veut dire moom laa lay expliquer te sa mbapat boobu mbapatu commune dañ koo communoo. combine la combine waaw dañoo combine daan ko ba si arbitre yi eh, déggal non du caaxaan de ba si arbitre ba supporter yi non ba si supporter yi bu dóoree kele sax ñoom dañu ci jafandu leer laa lay wax ar cross yi dañuy jafandu bëree noonu molo mu <laughs> la ilaha ma la wax mais lamb la moloo doo yàgg na dem bëri ji ay Pikine moloo yàgg na ay Fass xam di daan noonu la xam nga Modou Lo dañ ko tëggoon xam nga moom mu ñëw war xam nga Modou Lo xam nga Modou Lo xam nga Modou boo xoolee xam nga Modou jaar na écurie Falaye Baldé mm-hmm. jaar na écurie Falaye Baldé boobu jamonoy Baboy la mu ngi nekk écurie Falaye Baldé Baboy ba muy bëreeg euh, ba muy bëreeg euh, combat bi nu mu tuddee si euh, am na combat tur bi fàtte naa combat bi mm-hmm. bon Modou Lo mi ngi si yor si cumukaay yi si la bokkoon Modou Lo waaw yor cumukaay Baboy ak ñoom Zos monsieur lañ bokkoon yor saaku yi nii combat boobu dama ko fàtte mais su nekk sama xel naa ko indi après mm-hmm. boobu baa booy Modou jaar na écurie Fallaye Balde xam na leen nag parce que jaar na fa mm-hmm. baaboo yi woon na ko boobu parcelle amul woon écrit. est-ce que looloo tax ngeen moom li mu fa xam ko. bu koy daan. mais dama xam na qualité bu koy daan Euh, sëll bu ndaw la waxoon mais yéegi yëkk la. màgg na màgg na dootul sëll sëll mooy nag bu ndaw. mais wuy ma Ama ñëpp xam nañ ne mënul daan Modou Lo wax ji moo fi nekk. Ama Baldé mi ngi soog am combat. bi mu bëree ba léegi mi soog am combat. mais Malick Niang da koo dàq jëy Ama Baldé riposté Ama riposté. da ko riposté dóor ko mu rëb. ñëpp seetaan lamb riposté technique la. mënul xeex technique la déedéet technique la. Ama Baldé mënul xeex mënul bëre technique ñu baax li ma koy Ama Baldé mënul xeex dama ne fii ñu mënul xeex mbër yi mënul xeex bari na. Modou dafa complet. gis nga lamb Modou dafa complet. dafa mën a xeex fii ñu mënul xeex. mën a bëre am doole am fit gis nga mbër yi mënul xeex bariwul si làmb ji. mais Modou ma wax la ko fii ñu mënul xeex teg ko si yoon. bariwul si làmb ji mooy première. moom moom dama lay wax lu leer bariwul si làmb ji fii xeex sëllëxoo fi ne. non non xeexu sëllëxoo mu dal wala mu bañ a dal. déedéet fii ñu mun xeex dëgg jaar jaar yoon defaguñ ko si làmb amul mbër bu ko fi def mais non bul wax loolu Balla Gaye un moo daan bëree xeex bi jaar yoon bu ko def par benn par benn Balla Gaye numéro jox ma mbër bu mun a xeex non non munul xeex eh, non non non Gris benn combat la mu sa xeex muy combat Eumeu seen la ko teg si yoon yo sa des yëpp jaarul yoon lu leer laa lay wax moom mbërëm mënul xeex loolu non sama mbër sama mbër sama mbër nee naa la xeex gi waaw pour ubbi buntu la mais bu jàppee day jeex sama mbër lambam du yàgg. mais est moom Modou Lo dina demee noonu. non moom Modou Lo lu raw loolu mooy demee noonu. dina ko fekk si gardam dóor ko daw jàpp ko bëre moom. parce que xam nañ point feebar ndax Modou Lo dañuy croiser du croiser le bras. Ah, mais boobu dañ koy dañ koy bëri loo xeex ko daan ko. mais du question croiser le bras ñu duñ croiser le bras. mais xam nañu moom ndaanaan la Modou Lo ndaanaan la ndaanaan la mun na bëri dama ko koy nangul champion la. non récemment man nag xanaa dugguma parcelle man. ok indiwul Papa Sow jàppale ko si entraînement. non Papa damaa xàcc mu toog. non non daan nga sos. mais mais ñi mais ñooñu mais mais ñooñu ñeme wuñu Ama Baldé Ama Baldé buy diree ko buy diree doo xam lan mooy ñëw. <laughs> Barkos lay démb man maa ngi dégg euh, émission euh, ñun càndum bi. waaw euh, démb xaw ma seen émission mu jëpp démb maa ngi déglu kële nu mu tuddee ci. non kii euh, non kii muy wax euh, euh, mbër mu dëkk fële waaye fàtt naa nu mu tudd waaye bébé Saloum moom la jiite woon démb muy wax si Ama Balde mu ne Ama Balde ba mu ko dóoree moom ku après mu dafa nekk glace nee na waaw dafa sedd mais yéen affaire mystique ngeen non ah, ah ah eh, la ñii ñii mystique lañu wéy ma si dafa lan moo ko yëlbul kii kii nag xam nga. non non quand kii nag dafa xaw a soxor quoi ci benn instant. ah non soxoruma de. dafa xaw a soxor non non du ma soxor. parce que boo xoolee Modou. du ma soxor premier combat Eumeu Sène dañoo bëre dañoo xeex instant bi yëpp kontaan. Bécaye mm-hmm. ne ma damaa bu rëy. Mm-hmm. ñu ne ñëw confirmation mu dóor ko ma daan. jël bu rëy. waaw ah, socialement socialement socialement socialement nga ko daanee. <laughs> maa ko gën a baax mystique nag bokkuñu loolu nga yaakaar dokk bokkuñu. yaay nax sa bopp de. ta maa gën a baas ah. ah. euh, doomu mbër la. Ah. mais Modou Lo amul dara yu mbër. non d' accord Modou Lo am na Modou Lo amul dara yu mbër mais mais jaar na si mbapat. Hmm. da nga koy nangul. mais doomu mbër ak ku du mënuñoo bokk rythme mënuñu bokk rythme du caaxaan de Ama Baldé muy jël maari ñaa papam yàlla na ko yaara xaa àjjana xam la xam la la ko wax. Hmm. boo daanul maari ñaa ma xam na doo mbër. coow li bari na boo ko jëlul daan ko ma xam ne doo mbër. mu jël ko daal bar cross daal di caaxaan te man noonu la ma ko waxee mënoo pocco làmb jóg di nga gis lu yéeme dinaa ko yeew si dinañ dinañ ko yeew si gàllaaj supporter mi Malick Niang ba mu tëggee Malick Niang ba mu tëggee Malick Niang ba mu tëggee supporter la la def nii. tegul nii la def tegul kon kon kii mënu bëri ma mais normal mystique c'est une deuxième force. lamb ji looloo fi am boo amul mystique bi ba nga tukki bi ba nga bàyyi lamb affaire jinne la non mystique bi day am entraînement bi day am. non wuy ma Ousseyn. man sama mbër ba amul entraînement du ma ko supporté man. kii day wax kii day wax barke sorcelaire caaxaan du ma ko supporté. man yaa ngi dégg man takkusaan <laughs> bu ne am naa ko man ak Balla Gaye rek takkusaan la kon man ak Ama Baldé nekkul pression ci man nekkul dara ci man man instant combat bi ñoom ñoo ko yenu. Eh, pression la pression la. ah pression la. non combat bi ñoom parce que combat bi mooy pression si parce que waa ji bi dafa dal sérieusement war a préparer lambam jàkkaarloog booy bi bu jour ba mais Modou Lo xelam dal na bu yàgg. déedéet ñoom ñoo nekk di wax ñoom combat la xam tax ma ne du pression xam tax ma ne pression bu ne géré na ko Ama Baldé. mais est-ce am ak bii benn la. bokkul mais d'accord nañu. bokkul loolu d'accord non d'accord naa ak yéen. Mhm. parce que lay gën a dem di soxla les rois des arènes te ku ngay bëre c'est roi des arènes. ak nu mu doon non moom moom laa lay wax parce que Pikine la war a Pikine Pikine ñu ko bokk moo bari. daa yàkkamte rek. champion yu nekk Pikine moo bari <laughs> moom da si am cër am na cër bu mag te cër boobu mag boobu mooy il faut mu jël roi des arènes dugalaat ko Pikine. te moom rek ko fi mën a indiwaat. te combat bi xam naa gis yéen ndax dañuy wax grand contre petit mais boo xoolee yéen ci booy yi ngeen xam nga ñu duñ ay non non ñoom suñ ay booy su ñu nekkee booy booy lañ booy lañ si aas mais duñu booy si cerveau. non cerveau bi non c'est non. Ama Balde xale la Ama mag la. xale bu ndawa ndawa ndawa. par koro si leexi xale la Ama Balde bu xale xam nga xale màggagul. Ah. si li di développé gul. cër yi guddagul non cër yi guddagul <laughs> yi guddagul cër yi na lu bare bare bare bare mar na màggat Barkos lay war na màggat lu bari parce que yaramam yeewoogu ko. waaw du feeñ ci diggante moom Modou Lo. non foofu nag lay feeñee. foofu lay indi lépp lu mu am parce que la su la ñoom dañuy nar a parce que instant bi fëgg de jeunesse bi lañ koy wax xam nga ñoo soxla ñoo nekk sa ginnaaw mu ñëw asaaloo combat mais mais mais mais mais mais mais mais mais mais mais mais mais mais mais Yamari ah maa yee ah maa yee xale la. Modou lamb ji amul lu mu ah, ci. mais c'est normal Modou amul lamb ji amul lu mu ci. parce que Modou ay supporter am. am ah. na supporter <laughs> nangul naa ko ko. moo turoon bëri na supporter la supporter yu mu yor ay supporter yu jaay taar lañu. mais lépp la am non ay hamburger ay hamburger la ñu indi ay hamburger la ñu indi d'accord toog ay VIP ñeme nañ VIP non non dama ne ñu defuñu affaire waga dama ne affaire VIP nañ ko bàyyi waa parcelle parce que ñoom seen supporter yi dañuy ñëw toog VIP di ay hamburger ñun suñu supporter quatre-vingt-dixième minute dañ koy respecté ama yee ba tirim di yëngu du ñu bàyyi. amaye amaye. xanaa xamoon ni am na xam nga su ma ne. ay waleen ay waleen. fii ñoo ko moom. xamoon naa daañu daje bi jour boobu laa ko indi way boobu. xamoon naa ni daañu daje. xamoon naa ni daañu daje. waa parcelle. xamoon naa daa ñu daje parce que daje bi xamoon naa ko man man je rêve ça naa naa daañu daje te Modou Lo ñu nga jour boobu làmb jooju di nga gis bëri bu rëy mais dinaa ko daan jëli joo xamante ne ñëpp a yéemu lu leer naa dafa am lu leen dee. non non waay Ousseyn ko dara. Ousseyn ñun lu ñuy dee entraînement moo ñu dee. kii ko dara. xam nga taxaw fii ñëw ay non mooy duba Modou Lo xam nga wax jooju dafa yomb. non non non Lac de Guiers déggoo Lac de Guiers sunu mbokk la sunu lépp la. Mhm. mais Modou Lo nekkul ay wax moo koy daan da ngay liggéey ñaata adversaire ñoo dajeeg Modou wax ci mu koy junj mais moo la gën a xam ne waa Pikine ñoo la gën a xam ne komba bi nekkul luy yomb combat bi du am combat mystique. comme combat bi lan la duma daan. combat bi ñëpp am ci combat bi. mbokk yi gis ngeen gis nañu Ama Baldé seetaan nañu entraînement am bëggoon na leen andil ki nga am ki nga xamante ni mooy Modou Lo entraînement mais ku ne xam ni Modou lépp li muy def da ci suuf ay guddi lay entraîné bëggul kenn moo tax it bëgg nañ jot ay vidéo mais mënuñu am Ama gis ngeen ko ni mu entraîné gis nga Ama Baldé état de forme bi mu yor ak ci li mu nekk nii te combat bi maanaam daanaka ñëwagul. noo gisee. non non non Modou Lo ay day day làqatu ay Lac fu muy entraîné xam nañ ko. Lagos <laughs> lay entraîné Lagos la ne fu lay entraîné xam nañ fu mu nekk yëpp xam nañ ko ñun Ama Baldé am na booy sawar yoo xamante ne foo dugg ñu dugg fa. moom loolu moo la gën a xam y a de problèmes parce que ah. booy bu muy bëril ay booyam ñoo sawar sur les domaines sur tous les foo yaakaaroon ñu ngi lay topp ñu ngi lay topp moom xam nañ ne gaa yi ñu koy topp partout ay radar yi yor fu muy nekk gaa yi xam nañ ko. mais loolu tamit euh, du du risque ngeen topp Modou Lo non du risque parce que topp si moyen la du topp ay oto. non non topp si cerveau lay nekk fu muy entraîné bi xam nañ ko parce que. doomu Pikine dafa wër Ndakaaru. c'est que c'est que dafa wër Ndakaaru combat bi ñoom ñoo ko yénoo pression loolu Lac Rose ñoom loolu sa yoon newu ci. Ah, si yoon a gis nag ñoom calculé wu leen ñoom Modou Lo moo wu nag moo ñu gën a calculé yow yaa wax ne Modou Lo calculé nañu non Modou Lo calculé wu bu baax a baax a baax laa lay wax nii toog ba wax ci yéen noo de forme Ama Baldé non état de forme Ama Baldé man man Ama man nee naa la yeewoogul man nee naa la Ama Baldé bu entraîné wul sax si lay a am doole. oui ma forme yu ñëw bokkul. ma ne forme yu ñëw bokkul. non Modou day naan ay comprimé. dellu ma rek dellu ma rek moom. non si day naan ay comprimé pour jéem a non non. xam nañ échelon bi xam nañ ko. échelon bi xam nañ ko day naan ay comprimé pour yokk échelon. Modou Lo tolul noonu non tolul noonu. ay doom lay naan ay doom lay naan naturelul non non déglu ma mun naa wat ne ay doom lay naan sa ay doom lay naan ku ay doom la sa Ama Baldé dem États-Unis ma déglu ma naan doom ci làmb gaa yi ñooy taxaw doo ko gis bu bi léegi doo ko gis doo ko gis waaw mais sekk ci làmb la ay doom la Ama Baldé day sekk pare ci làmb du dëgg sungu meew la Ama ah, Baldé ay sungu meew la ay sungu meew lay xooyal xam nga ñu mu demee moom lay xooyal Balla Diouf dafa sekk ci làmb moom lay xooyal yaa ngi dégg combat boobu Moussa Faye da xam na ne yaramam poids boobu moom attanul poids am Ama bale dafay asma day gaaw day gaaw sonn waaye day gaaw sonn <laughs> waaye ah, lésir laa ko yóbbu du ko daan ko leer laa la bu déglu moom nee na damay xeex ak moom nee na moom. dama koy dugal ma lésir ne na koy da koy yàggal. <laughs> mais Ama Baldé bëri na fa guy gi mu yàgg. mais lamb ji da nga koy ko am na wala amul fa nga mujjee parce que non ñàkk non. ñàkk ñàkk dal ñàkk dal dal. baa booy bu mu ñëwee la ko wax. bis defal ndànk. baa booy loolu la ko wax ñëpp dégg nañ ko télé. defal ndànk bis bi après mu ñëw ba guy gi ñëwee ba booy saa di wax ji. Ah. na ñoo ko bokk. loolu la mën a wax. non si non non gars yi xam ne ñu mu demee day naan ñun ay sportif lañu man sportif laa. non moom day sportif la moom moom gars yi ñëpp la. athlète buy dolli. non athlète la. non mais day dolli. yokk noo xam ne ñu mu demee. non bañu ñu nongul naa la ko. grand. ñame di entraînement su meegoo ci làmb heure bu demee États-Unis États-Unis ñëpp xam nañu fa yóbbu mbëri. boo déggoo li ma la wax ah. xóoyal bi euh, euh, sungu meeku la ñuy naan ñëwaat. kon xanaa mbërëm lay naan sungu meeku la ñuy naan ñëwaat yaa ma dégg Ama Baldé est-ce que mosu gis ànd Ama Baldé ay entraînement bi dem ay unis fu ne du ko euh, sax. day dem France fan non France. elle moom mu nekk France INSEPS lay dem. te xam ne INSEPS. ak at du di yëpp foo lañ entraîné. fa lay entraîné moom sénégalais yi lay déglu ñoo la gën a xam ne yow li ngay wax nii. non si si non damay wax du doole naturel. su ma nee man sportif la du doole naturel day day naan ay comprimé pour yokkat doole ji pour mu dëgër ci biir. mais mbër boo gis day yokk kattan. non mbër boo gis day yokk kattan. Ama Baldé naan na voilà na la bind la. mais dëggal mu naan bind sidit bi mu bi yàqu bi la bind bi la bàyyam ngay xool. waaw yow bu ñu dajewee dinañ xam ne ku ëpp doole. boo ni muy def combat yi abi sifflé dindi loxoom seen diggante mu dox sa mu diree ko sañu sañu agressé Modou Lo sañu ko agressé xanaa Modou Lo xanaa Modou Lo doo génne saako yi wax ji moo fi ne Modou Lo bu dëggalee ko moom moom kenn musu koo gis mu daw génn saako yi mais mu see gis Modou Lo dama ne laaj ko Papa Sow jëm na dëggal boppam mais lu ko daan xamu ko Papa Sow ah lu ko daan xamu ko je ne sais pas non xamu ko xamu ko non wuy ma parce que booy bi moo naqaree xool non wuy ma lu leer laa lay wax dafa yaatu dafa yaatu ba dafa yaatu kaa wuy ah ma yow nga yaatu nees jàppale fii du ma la daan la. ah mais mais mais muy gi jàppale. boobu xale la nees mooy bëre nees xale la. yow nga taxaw nga naan ma ay no question Modou amul adversaire bu mu dajalu ci làmb Ama Baldé mooy laa mujjee bëreel mais sénégalais dañuy jaawal ñaata niil nga am sa niil yi ba nga demee poids lourd yi niil yi niil yi si la non dama déglu poids lourd yi niil yi si la ah, waaw na su ah, ñooñu suñ ma joxoon ñooñu nga xam wuy ma ñaata niil la kon sama champion kenn du ko laam-laamee si Sénégal man Bombardier moo ma daan ak Balla Gaye ñaata niil dama a laaj Bombardier ñoo ma daan ñaata niil kon kooku si poids lourd yi champion dama lay laaj mais sénégalais ñu may déglu ñoo la gën a xam ne Modou Lo du du sax Ama Baldé ñaata niil mooy woon bàyyi ko ma daan ko xaalis moo ñu boole Ama Baldé xaalis moo ñu boole maa moom. xaalis boole wuñu de ba léegi man roi de serre soxla. xaalis moo ñu boole soxla man fekkee xaalis am xaalis. man dañ may fay xaalis waxtaan. amoo xaalis musuma bëre. amoo xaalis sama sama combat sama combat ay saa jëm kaw la. non non non non musoo fekk combat 100 millions jëm kaw ma duma laal sa duma la kase bu ndaw lu tax Ama Baldé amul xaalis ah, ah, ah, na ko wax Ama amul xaalis moom si jëm boppam Ama Baldé mi ngi soog am xaalis mi ngi combat Modou Lo ah déedéet ko fay musu ko fayee ko combat Modou Lo mais Modou Lo moo xaalis loolu moo topp ay xaalisam ay xaalisam dafa dafa bari si sponsor dafa bari si sponsor bi <laughs> sponsoring bi ma nga fa am pa gars yi xam nañ ko ko yore mënuñu ko fay lu leer laa lay mënuñu ko fay bari na si sponsor yi alalam mu ko fay si ay yére blouson yi muy sol. waa Seras ak waa Marsek ñooy dajale. Eh. Eh, la ketal ñooñu Seras mooy lamb <laughs> képp xam Seras jaaroo fa bëri woo. ay lamb ñoo tee lamb. Seras mooy Pikine. non yu fa jaar yëpp. Seras jaar nañ Seras. est-ce que Modou Lo dina ko. Oh. non oh, oh, xajul fenn. Balla moo gën a métti. ay déedéet faxas bi mu jëlee ko. tànk Balla Gaye ñu Ama Baldé duñu benn. non Balla ci. non duñu benn duñu benn. këddu ko est-ce que am Modou Lo taxaw. non ñemewul loolu. Modou Lo taxaw Modou Lo ta bala taxaw. du taxaw Modou Lo Modou Lo yabul waa parcelle sax. mën naa wane ne dóor ñu. Modou Lo combat bi déllu ma rek day reculer reculer force wuy ma wuy ma ko wax non day reculer non booy bi mënu ñëw ko ba ñu reculer lu leer laa lay wax booy bi ay waxu caaxaan de daal déggoo li ma la bu dóoree dernière gàllaajam boobu bitel bu mag bi ba sotti ko ba pare eh, mais boobu dañ non ah système la système lañ koy sottee système la ah c'est un la système la bu buru suuf ba daw buruslu oh njaam non jeex na nii ñibbi leen jeex na man moom loolu dama diwul suuf si rek njaabam ba njaabu bandi boobu nga xool Modou Lo Modou Lo bu jaaxlee Modou Lo bu xamee day daanu ay supporter gaan bi koy sotti gàllaaj mooy tooñ foq fi sànni fi mooy non si si bu jaaxlee non xam naa lu ma lay wax ñun Papis bu jaaxlee day sotti ay gàllaaj loolu lay ne ko def si Ama Baldé parce que Ama am na xale yu sawar comme moom Modou Lo xam na ko Ama Baldé daa am ay booy yu sawar comme Papis moomu Ama da koo bari le Modou am na sérieux problème. mais lamb sérieux problème si lamb jooju. Modou amul sérieux bi wala su taxawoon tey ah ñu defee ko biir Pikine est-ce que du ngeen fa am ne affaire bandu yooyu may la ni nga waxee noonu la biir Pikine may la. mais Modou Modou nee na bu ko neexee mais foofu lañ koy bëree foofu lañ koy bëree. Modou nee na bu ko neexee eh, maa àgg foofu maa àgg nag. oui bu ko neexee ñu ngi kër Fara Bale. est-ce que ñu ko ëppale dox di ñëw amul oto direeku la am Ama Baldé boobu day dox di ñëw du jël oto. dox dugg si koñ yi di ñëw ful yi màbb. stade bi ñoo ko moom parce que Pikine la nekk ñoo koy feesal dell. stade bi kat boo waaye bu yuuxoo duñ ko dégg bu yuuxoo duñ ko dégg. stade bi non non non la féete. Pikine Nord la féetee Pikine Nord fees fees Ama Baldé rek Pikine Nord la la de ak Pikine West ñoo dend Pikine Nord puis si West d'accord mais yéen pour ngeen jéggi dex ngeen di jaar dex bi il faut ngeen jaar si montagne jaar seen yi si yaan ngeen di jaar te si yaan yi wóorul bi temps yi bari ndox oui la ñu waxante dëgg dafa bari ndox bëri ay bar autoroute bi fa jaar man damay ñëw fees stade balaa moo dugg si fekk bi fees mais bu kàddu yu mujj lan ngay wax ñi nga xamante ak nu ngeen waajee làmb ji. non supporter Ama Baldé yi ni ñu waajee làmb yi mooy euh, ñu ngi hmm. te combat bi ñëwagul. si ñu ngi réunion man bàyyi ma sama bopp. réunion jëmale kañ. non man man mi di wax ak yow sax man mi wax ak yow damay def damay sangu ay cubbukaay. <laughs> mbër bi day sangu damay sangu non bàyyi ma suma bopp ma nit xam naa ni gars yi man la ñu ut je sais non dañ may éliminer pour jéem a noppiloo parce que su ma yuuxul y a des effets non damay wax dama koo xam non dañoo ma yëngatu man xam naa ni ngi sama kaw waaye dafa kontaan parce que Pocha xam nañu muy lépp si Ama Baldé bu gësamee stade bi. bu ko gisul bu gësamee Ama Baldé si gu xool Pocha sol rouge blanc. ah taal flambeau yi. oh. waaw parce que set Pocha ku ma gisul nag stade da nga naan non li am na lu xew moo tax man su ma yëngalul mbër mi du yëngu. yow doo yëngu yow oui moom du yëngu oui moom. non dama ne. ma gars yi mënuñu ma tere non dama ne. moom fii la yëngoo ci table bi dama ne dama ne làmb ji làmb ji xam naa ne bàyyiwuñ kenn man du ma ngaaka. ii est-ce que di nga ñëw ma ko ne bëkku na ma bu baax. dégg nga ah, non dama ne man xam naa loolu. Modou Lo bu la mais si pare stade ma ñëw gars yi sëf ma. nga gis gan ma gis gan ma forcé du ma dem. Eh. man xam naa loolu ba. man si milieu bi laay dund. si milieu bi bàyyi eh, bàyyi ma sama bopp ah. oui ma kii ah, ma de. oui ma c'est côté film laa damay jouer film. damay jouer film ma comédien damay jouer film man lu may da film laay def ak yow. non oui film. ni ngeen waajee làmb waaw ñun rek lañ koy waajalee comme yeneen combat rek comme ni ñu ko doon gérer Modou moom xam nga bés bés bu nekk tamit xam nga am na ko fi. kon bésu Ama Baldé dañ koy jël au sérieux teg ko ci yoon ak respect dem ci làmb ja def fair play xam nga di ñaax gaa yëpp xam nga ñoo bokk ndey ñoo bokk bàyyi xam nga ñu jéem a waa ji indi ko mooy loolu. waaw xam nga xam nga xam nga kii xam nga kii lu muy wax man nee naa la Modou Lo dañ koo xam xam lu koy daan. léegi déy ma ko ci Wassare Lamb. la. déy ma xam nañ ñi. parce que dégg naa dafa amee sonu dafa amee sonu moom dafa amee sonu da koy ah, nag. <laughs> xam nañ ko xam nañ fa sonu ba ne. Eh, eh, eh, du caaxaan de. bi Balla Gaye daane Modou Lo dégg naa mu ne kele bi Balla daane Modou Lo moo ko jox. non dama ne lu leer la wax wax ñu waxu caaxaan de lu leer la wax te làmb jooju euh, Balla Gaye ak Ama Baldé ñëpp xam nañu si liggéey ñoom ñaar dinañ si entraîné force dara du ko dindi. dañ si entraîné la am ci combat bi yow ñaanal yàlla la yàlla may ndam ah déedéet déedéet d' accord ma ne. non d' accord ma expérience fait la différence. expérience fait la différence. mais expérience fait la différence. la bu yaakaar nga ci lay wàllu. lan yow yaay bëree. laa ilaha illallah yow dama lay xamal ni technique bu ko daan moom technique bu ko daan. Ah. si Ama Baldé la jógee. te Ama Baldé buy bëree. no Balla Gaye day taxaw dina ko dina ko dimbali si ay bagages c' normal. parce que. waaw du ci loolu ngeen di yaakaar. non non non mais ñoom si la ñuy yaakaar ñoom ci loolu la ñuy yaakaar seen bopp moom muy entraîné ji. non non wuy ma yóbbul ay Papa Sow yóbbul ay yeneen mbër yóbbu na ñetti mbër. toog yóbbu leen Espagne. Papa Sow non non préparé combat bi yóbbu leen Espagne. xam naa ko de. Ousseyn moom comprendre lul. Modou Lo du nekk ak ay grand am Papa Sow grand am la ay franc ay rakam lañ. Yékini Junior mu am sérieux mu am combat bu sérieux ànd seeg ñoom pour ñu dem liggéey. ah waaw ñoo bokk parcelle kon c'est normal yaa ngi dégg yow nag bu nekkee làmb ji ay missing nga ci xalaat làmb ji noonu kee seen bàyyi ñoo xaritoo loolu kenn du ko dindi mhm. c'est la génération de génération seen bàyyi xaritoo dara ñaawul ñuy jàppalante Ama Baldé ba ko nes daanee loolu nga wax noonu Mass Margan xam nga lan la ko wax mun a nes jëlal booy bi boo ko teelu jël bu màggee day naqaree daan teel koo daan si xalem bii mu ne teel koo daan ama bu nee naa la yëkk la dootu sëll dépassé nañ sëll léegi yëkk la ñu dansé ñëpp daan naa leen gërëmoo ñu waaw kon euh, ñoo ngi tàggu waa pikin yëpp ñu xam ne lii ñuy wax ni waxuñu ko pour sànni xeer waxuñu ko pour dara mm-hmm. pour lii may sport sport day boole. làmb dafa baaxoo fu làmb ñi nag fu ko yàlla def bu ko yàlla defee stade bu bees bi arène nationale ñun ñëpp ñoo si discipline yar ak teggin coow bañ a am dara bañ a maa ngi gërëm nag buur mm-hmm. buur bu tax ma ñëw fii. Mm-hmm. parce que moom delloo na naar bi xoromam. parce que jox na ma sama wàccuwaay. waajo waajo la doo xamante ne moom bu ma gisee rek moom day bég. fu ma gisee su combat Ama Baldé mu gis ma ma nekk si forme day xam ne am nañu ndam parce que maa moom du ñu réeroo ñooy waxtaan chaque jour ñooy réunion ñooy nekk entraînement ñooy nekk fépp fu ma yéexee ñëw sama woo kon boog buur il faut ma gërëm ko maa ngi gërëm nag estafu écrit Falaye balde yëpp maa ngi leen di gërëm maa ngi gërëm Cité Lobaat Pikine bu ma dëkk. Cité Lobar lii diis Pikine bi ma dëkk maa ngi leen di gërëm maa ngi leen di sant maa ngi gërëm ñoon bàyyi bàyyi sama tëyër boobu maa ngi koy gërëm foofu laay nekk chaque jour di fréquenté di fa waxtaan di dibi dibitëru sugu foofu mooy sama kër foofu laa dëkk chaque jour ma lekk ndawal man bokk ak moom damay entraîné sama mbër day lekk ndawal ñii seen mbër hamburger lay lekk lay wax ñu bàyyi la nga tàggatoo maa ngi siyaar ñëpp xama di delloo njukkal ñëpp daal di siyaar waa parcelle 1 ba 26 fi ma jógee waaw di gërëb Daniel bi ma fi yabal tamit xam nga grand Daniel waaw moom xam nga euh, day jàppale Modou loolu bari daal di gërëm ñëpp 1 ba parcelle 1 ba 26 bàyyiwuma kenn waa làmb ji nag xam nga dañ koy préparer comme ni ñu ko war a préparer ci discipline comme grand bi rek lu mu wax. Hmm. yarak ak teggil parce que ñu ñoo far xam nga làmb ji ku daan xam nga du génn Sénégal daal. xam nga ñu def ko ci xam nga fair play daal maa ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp. gis nga nii lay ci jàmmarloo Wassare Lamb Wassare TV dañuy baaxoo di andi amateurs yi di andi supporters yi ñu wax ci leen ci làmb parce que dafa ne waaw waaj naa li may waaj damay ndax làmb loolu bokk nañ ci li ko rey làmb mbër dafa ñëw def signature bu neex sponsor yi ñëw amateurs yi ñëw ah supporters yi di ko waaj parce que lii dafa baax dafa baaxoo sport sport dafa baaxoo lii surtout làmb di leen wax ne nag ni lañ koy defee jàmmaarloo di leen wax ne ne numéro yi 77 la 038 57 86 pour contacter ñëw bokk ci émission yi waxtaan wax ci seen xalaat bàyyi ñu kenn nag dinañ ñëw ci tëggkat yi dinañ ñëw ci ñi cumbukaay bi lépp loo xamante ni ci lamb la bokk jàmmarloo dina ci ñëw ba beneen yoon dina ngeen jëf gars yi